jëmb délégué yëpp ndaje réunion danoo jël décision décrété jël benn grève illimité bu amul àpp maanaam grève illimité nag bu ñu ko jëlee dafa fekk ni danoo danoo danoo sës. dañoo sonn waxtaan nan ko sonn. ban ñëwee janvier la ñu installé danoo waxtaan ak autorité yëpp gouverneur autorité interne yi les médiateurs et tout le ministère deux fois mu jëlee engagement wax ni dans les deux mois bi mu fi njëkkee mois de juin le 6 juin te ñu dans deux mois def nañu rendre suñu chantier dinañu rendre suñu chantier PSF parce que installation moo si defoon mais également dinañu rendre suñu pavillon mille lii maa ngi rappel maa ngi rappelé ni que ni di fàttali ñëpp que université Assane Seck de université boo xam 10 étudiants yi donc ñoo logé biir campus mu nekk lu difficile ñu am pavillon mille lii bu ne suñu ginnaaw ba léegi mun ñu ko recevoir te alors que 2022 lañ ko mën a jot ah ñu boole ci chantier PSF fii nga xam 2014 ba léegi mooy fi ñun ñu doon xaar recevoir ko booba léegi ministère ñu daw ci ginnaaw ginnaaw mu ñuy wax mu ñuy jox ay échéances yoo xam du ko tenir mais également la restauration restauration étudiants yi duñu lekk lu ay riz au foie ceebu foie man vraiment c'est la première fois ma koy gis dans ma vie ceebu foie dafa métti dafa métti mu nekk situation yu difficile yoo xam ne étudiants ñu koy dund ñu nag lépp euh, stabilisation du calendrier universitaire tax na ñun bëgguñu woon a dem ci ay mouvement mais benn ins da ngay sës kon da ngay pousser sa bopp wala boog nit ki da lay pousser nga jël ay engagement yoo xam ne bii sax doo ko bëgg donc ministre bi dañ koy wax carrément ni ko ñu soxlawuñu ay wax actuellement ay jëf lañ soxla donc donc jëf lu dul ñu gis université bi ay changement si volet social ak volet pédagogique Il ba a une réaction le plus rapidement possible sur le terrain mais beaucoup ay wax wax wax ju donc ministre bi la encore une fois que nii que que situation bi réglée le plus rapidement possible monsieur le ministre fexee la def ay jéego yi gaaw a nous nous ñu gis ko étudiants nous teg seen ñu